jërë ngeen jëf mbokku internet yu BG TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di wax ne dellusiwaat nañu toujours ci li ñu sasoo ak yéen mooy jug di dox fépp fu information am wala lu leen di soxal wala ku ngeen bëgg a xam ñu indil leen ko seen kanamu écran yéen suñuy internet ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ñi ngi gis commentaire ya ah, bég nañu. tey nag indil nañ leen benn ndaanaan boo xam ne ah jeune talent la mais ndaanaan la ci li muy def di woykat di artiste Momo ngeen di xam xam naa ne doomu Medina am na bis bu mu jëm mi ngi koy waajal ñu ngi ko fekk sax ci répétition yi fii ci Douta Seck bi mais dinañ am ak moom waxtaan tuuti rek dinañ am lu ngeen war a xam ci moom bëgg nañ ngeen xam ko bis bi lu tax mu def ko kañ la fan la dina leen ko dégtal euh, ñu bàyyi leen ko mu nuyu yéen suñuy internet euh, ñu dugg ci waxtaan wi ndaanaan nuyu la. maa ngi lay fay moo très cher. baa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. yaa ngi ci forme de en temps yi. waaw maa ngi forme ak répétition yi moom xam nga doo comprendre. ñu bàyyi la nga nuyoo ak internautes yi. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp ah maa ngi nuyu waa Sénégal euh, di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ah di nuyu di nuyu Sénégal. waaw di nuyu Medina gi nga xam ni fii laa dëkk waaw di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mooñ entier. yeah. très rapidement rek euh, kan mooy Momo kii seetaan te xamul Momo. waaw Momo mooy benn ndaw boo xam ni euh, day yëngu ci wàllu musique euh, di def musique bëgg musique waaw yaa ma gën a xam daal Momo daal mi ngi noonu daal benn ak benn taalibe la daal di di yëngu ci wàllu musique waaw. yaa ngi dëkk Médina mu bari ay ndaanaan bari na ay woykat ah euh, El Hadj Keita mi ngi fi ah Youssou Ndour mi ngi fi Pape Birahim mi ngi fi loolu moo la inspiré ba nga dugg ci musique wala. non pour ki ma inspiré ma dugg ci musique euh, gannaaw yàlla Wally Seck moo ma waaw Wally Seck moo ma dugg ci musique te aussi mooy sama idole. ah bon. yeah. mooy sa idol mooy sama idole. lu waral mu nekk sa waaw loolu yàlla la nag loolu moom xam nga <laughs> loolu yàlla la loolu yàlla mooy def loolu. waaw yàlla mooy def loolu des fois ma romb ci mbedd mi sax nit ñi naan ma e eh, waali waali waali te dangay gis dañ ñii ñi ñooy gis ci man euh, euh, visage waali te mën na nekk man yoruma visage yooyu noonu comprendre nga mais nit ki mooy gis loolu ci moroomu nitam. yeah. mais loolu yombul quoi en tant que nga dëkk Medina Youssou Ndour ñu xam ko mu nekk international Pape Birahim lim naa ko sànq El Hadj Keita ñoo ñëpp di ay ndaanaan waa li nekk sa idole ci musique. waaw euh, pour ñu nga tudd noonu. Euh, ma leen di nuyuwaale au passage di nuyu euh, suma papa Youssou nduur di nuyu suma mag suma frère El Hadj di nuyu Pape Birahim ah, di nuyu ndaanaan yi nekk Sénégal ñëpp maa ngi leen di nuyu. waaw loolu nag euh, euh, man pour man yàlla la ko pour man yàlla la rek yàlla yàlla mooy yàlla mooy def loolu waaw. waaw xam nga ni suñu papa yu suñu icône la ci musique Sénégal waaw euh, ndaanaan yi nekk Medina tamit de suite ainsi de suite waaw ndaanaan yi nekk Sénégal bari na lool lool lool mais yàlla mooy def loolu ci nit loolu mënuma ci dara. yàlla moo def nga bëgg Wally muy sa idole moo def ma bëgg Wally muy sama idole. ten mbokku internet yi juin bii ñu nekk lan moo waral bis bi waaw bis bi nag euh, dañ ko dañ ko def dañ ko njëkkoon programmé euh, corona ñëw xoqatal nañu ah ñu programmé waat ko corona ñëw xoqatal ko bii nag ñu ne euh, waaw dëgg neexul daal faaw ñu faaw ñu soos faaw ñu soos <laughs> am ci bi lan mooy am ci bis bi ak lan lan ci mën a xaar. waaw lii am ci bis bi ñu ngi ciy liggéey li am ci bis bi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax ak sama staff waaw ñu ngi ciy liggéey en groupe ñu ngi ciy liggéey ak xel mu dal ñu ngi ciy liggéey ak déggoo waaw ñu ngi ciy liggéey ba bu bu bu bu boobaa incha allahu rabbi di ngeen kontaan di ngeen kontaan. waaw parce que euh, ça va chauffer dina metti dina metti dina tàng dina yàgg. dina yàgg. yeah dina metti dina tàng dina yàgg. Hmm. yow loolu moo la ko waxee sax war nga war ko gëm. waaw ndax xam nga kan mooy Momo Mbaye. yeah. ak sa public est-ce que teelul. ci nga woote bis bu tol noonu ah ak ñi nga ci <laughs> war a sargal yaa ngi sooraale loolu ci artiste buy door a jóg. Ah, la rek ak bëgg wane sama bopp aussi bëgg wane sama bopp ah bëgg waa Medina. kan mooy Momo Mbaye bëggoon waa Sénégal aussi kan mooy Momo mbay ba ku ñëw foofu noonu di nga yàkkamti waat soirée Momo Mbaye incha allahu rabbi yaa nga ciy sargal ñan yaa ngi Medina wala bisu Medina la sargal Medina. non man man man damay sargal Medina sargaluma kenn waa Medina laay sargal te képp kuy euh, jeune Medina sama yaay yi nga xam ne Medina lañ dëkk. ah sama papa yi nga xam ne naa lañu dëkk képp ku dëkk Medina maa ngi lay talal sama loxo yi di la ñaan nga ñëw fële ci Alizé ak Sinaay club ndax dina metti de <laughs> fee dina mel ni sabaru law bi barki bi <laughs> mais Momo bëgg naa ñu dikk waxtaan ci showbiz ah, ak coowu showbiz actualité fii mu toll ah artistes yi liñ leen di waxal ay affaire bari na trop seen diggante ak internet bi chaque jour ñi publier ci dara te du lu ñuy inventé lu ñuy def la barki démb rek gis nañu ku mel ni Ameth Thiou ak Amady Badiane ah, seen affaire boobu toj na internet bi souvent yooyu est-ce que du ngeen ciy bàyyi xel soo amoon looy wax. waaw loolu pour loolu noonu dama leen di nuyuwaale au passage sax sama sama sama sama papa yooyu noonu ah di leen ñaanal jàmm loolu showbiz la rek waaw ñoom xamante nañ seen biir waaw. peut-être juste dañ ko def aussi pour bégal gars yi je sais pas mais ñoom xamante nañ seen biir te aussi loolu c'est pas la première fois ici nii mu ne mu ci Sénégal waaw. waaw d'accord mais warul am. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñaawlu nañ ko lool lool lool sax waaye xëy na nag njuumte moom mënul ñàkk waaw. référence ngeen da ngeen di wax nit ñi di leen dégg di génn ci télé bi sax nit ñi di leen bëgg di leen roy kon bu ngeen di wane da ngeen di wane loo xam ne ku ci roy mu nekk loo xam ne lu baax. dëgg la xëy na tamit njuumte rek comme li ma la wax njuumte njuumte moo mel noonu xëy na bu benn yoon dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax baax incha allahu rabbi di leen nuyuwaale au passage waaw waaw di nuyu bépp artiste aussi. waaw pour li li li li dal sama ñaari père yooyu ah <laughs> bañ leen dal incha allahu rabbi nga dëkk Médina dunu wax ak yow te dugg nu tuuti ci politique xëy na dina dinañ man lañ leen fa xaar ci bis bi ku mel ni Bamba Fall ku mel ni Cheikh Tidiane Ba ak yeneen autorités yi nekk ci dëkk bi mais looy wax ci seen diggante yéen ñaar ndax temps ñoom ñaar ndax temps yi tàng na trop politique bi tàng na fii ci Médina trop. bon man nag je suis waaw man politique loolu mënu ci wax dara dara dara dara dara. doom Médina. waaw porteur de de dëkk Médina. waaw man je suis moo waxaat la ko waaw ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw coolee bari rek waaye ñoom ñaar xamante nañ bu baax a baax a baax a baax waaw xëy na dañuy xumbal rek waaw mais ñaar xamante nañ bu baax a baax xamante nañ bu baax a baax a baax ci jàmm lay mujj parce que ñoom ñaar ñoo ñu noonu bëgguñu lu dul Médina jëm kanam bëgguñu lu dul Médina avancé waaw kon. am naa ci njort bu rafet xam ni ci jàmm rekk lay mujj waaw. ñu dellu siwaat ci terrain jaraaf bi fan yële bari yoo juróon na fi coow lu tàng ñi nekk ci bopp bi jiite ko ak ndaw ñi nga xam ne xëy na bu coow amee ñoo ciy xeex ñoo ciy gaañu boo amoon loo leen di wax wala conseil boo leen di jox. waaw di leen wax ñu ànd ak tawféex rek ñu ànd ak dal quoi waaw ñu def ko ñu def ko à la Baye Fall Baye Fall ma mooy lan. maanaam maanaam maanaam affaire yi jarul muy metti nañ koy nañ nañ koy waxtaanee suñu biir ah, bu ko defee rek euh, xam naa ni jàmm dina am waaw ndax ñun ñi euh, jeunes yi nga gis ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy génn di di rey seen bopp ci mbedd ñoom Medina lañ fi nekkal nekk luñ fi ñeneen ñu dul Medina waaw di leen di leen sensibiliser rek di leen wax ni. Euh, ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax ñu bàyyi ñu bàyyi xel ci ci grand bu baax la sama grand bu baax la ku ñàkk ki ñaan nag man ci moom rek laa mës a gisee artiste boo xam ni da koy message tak mu envoyé le message tak loolu ci moom rek laa ko gis waaw moom rek laa ko gis waaw di ko di ko nuyu di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko nuyu di ko gërëm bu baax a baax a baax grand yaa fi nekk. moo fi nekk. moo fi ne lu tax nga wax loolu. waaw loolu loolu xeetu langage la rek xam nga ñun dañoo soof ñun dañoo soof ñun suñuy suñuy langage amul. non wax la de grand yaa fi nekk nga ko wax. <laughs> mi ngi fi Pape Biraye mi ngi fi ñeneen ñi ngi fi nga ne ko yaa fi nekk. saa yu ma dugal <laughs> saa yu ma dugal saa yu ma dugal waaw en tout cas daal. waaw moom amul morom. moom moom amul morom waaw. waaw El Hadj de fii ci Medina. non waxuma lool de loolu waxuma ko. dama man la laaj loolu dama ne moom amul morom. yee. mel ni moom nga gën a faral ci ñeneen ñi. non man sama bopp laa faral. man je suis mbay Mbaye. you know je suis ma. yee. lan ngay tàggoo ak euh, mbokku internautes yi nga nga wax ci bis bi luñ ci mën a xaar fàttaliwaat ñi kañ la. waaw di gërëm suma papa di gërëm suma yaay Assou Mbaye bala ko du sàkk ma ca ma joojo mata baan mata baan xayta laam algóora I love you bu ko bu loolu weesoo maa ngi maa ngi maa ngi gërëm suma yaay yi nekk Medina di gërëm suma waa koñ ah, di gërëm sama papa yi nekk Medina ah di gërëm suma xarit yi West Foire di gërëm waa Pikine banlieue géejawaay ah kulim jum maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp yaa bis bi nag euh, le vingt cinq moom xam naa ni dina tàng dina yàgg lool lool lool te nag xam naa ni ndeysaan li ma ci metti nag mooy ku yéex doo dugg man loolu mooy sama problème loolu laay jooy te noppeegu ma am nga ci am nga ci xel mu dal ci loolu non loolu bu soobee yàlla loolu kenn werantewu ko wax baaxul wax baaxul incha allahu rabi bu ci yàlla àndee yàlla nañu yàlla may fekke ak tal le vingt cinq dina tàng dina yàgg ci kàttanu yàlla ku yéex nag hmm, ndeysaan gisuma la mbaaw fan la Alizé Alizé ex Madison Alizé club ex Madison waaw di woo ñëpp nag di woo ñëpp di ñëpp waaw di ñëpp Aïcha waagaan ni ñu leen ko waxee ah tey moomoo ngeen amoon seen artiste seen daanana ah, ñi ngi nuyu bu baax euh, Matar Wale ah, moom moo nekk ci ginnaawam di ko di ko jàppale ah moom la ñu dégganteel ba ba ba jël ko mbokk yi ni leen ko waxee rek euh, tey moomoo ngeen am bu ëllëgee ñu xoolal leen seen beneen artiste waagaan ci caméra bi seen mbokk seen xarit Mbaye Diop ah DG Bour jaar naa la Aïcha